asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokku soufisme ak siisme maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp jaam di rafetlu convergence yi fi jotoon a jaar yu am solo yi nga xam ne jot na fi jaar bokk <coughs> di kontaan ci loolu ndaxit it xam-xam moom eh, dafa war a am lu ñu tuddee naqdul ilmi dafa am solo ndax loolu yokkuteb xam-xam la naqdul ilmi autocritique ku nekk daf ko war a nangu loolu dafa dafay indi taqaddum taqaddumul ilmi lay andi bañ ko dafay andi taraajo te axur donc loolu dafa am solo ko euh, ma déglu fi ay commentaires yu ama am am am solo ci wàllu philosophie ci wàllu tasawuf ci wàllu li nga xam ne moom mooy xaqiqatu tasawuf fi islam vraiment loolu moom euh, am na solo jariñu nañu ci nag bu baax a baax a baax a baax a baax ba tax na tasawuf moom euh, ak philosophie d'une manière générale dégg naa benn mbokk bu baax ndeysaan mu koy la philosophie grec grec grec mais grec après la philosophie bi nga incarné les égyptiens les pharaons c'est la te muy lu incarné comprendre métaphysique comprendre aspect ah, astronomie mathématique waa bi dañoo ñëw sàcc xam-xam yooyu ñenn ñi yebal seeni doom ñu ñëw jàng xam-xam yooyu bi ñu ñëwee ñu incarné ko foofu bu ñuy bind di toxal duñu ñu duñu duñu def iqtibaas maanaam li ñu tuddee iqtibaas ci balaaga duñu am honnêteté intellectuelle xamel ni lii ñu ngi ko jëlee ci tel tel tel telle dañu naan kii moo créé lii kii moo créé lii wala ñu wax source bi mais les égyptiens maanaam dama bëgg wax ci gàttal rek l'islam ak ñooñ lislaam lislaam ci ñooñ ñi nga xam ne ci ci ñoom la soxee ko fa la philosophie jóge kon philosophie nag am na aspect yoo xam ne ak ay kaddu yoo xam ne ak ay wax yoo xam ne lislaam du ko nangu donc c'est pour cela que waa ji waxoon ne la religion est une dogme dog dogme la donc des fois philosophie dafay romb euh, euh, euh, l'islam ne ko duma la ci topp damay teg samay principe mais damay teg samay argument aussi contextualiser waaye teg sama texte ci loolu pour ñu àtte ko parce que mënu ma ci dépassé parce que ñun dañoo am foi al iman te iman dafa am ceinture bu mu lay jox dafay am limite dafa am ay dawaabit yoo xam ne moom moo lay tënk quoi moo tax euh, wax dëgg yàlla daal leeral yi am na solo beneen bi ci topp euh, ci la philosophie la philosophie xóot na gën naa aussi wax naa te parce que ku ni ak ñi nga ñoo même niveau yi wax des fois duñu sóor est-ce que y a des textes coraniques duñu est-ce que y a des textes évangélistes wala textes Torah duñu ko est-ce que logique bo xamante ni ay pensées mën nako accompagner est-ce que mën na nek ñu wax lu ñu bëgg wax hmm? donc après fofu nak pour nga comprendre il faut que nga xalaat di méditer di penser au-delà pour mën accéder ci logique bi nga xamante ne ni fa lay waxee gis nga ñooñu seen base du du du du du du du ben religion c'est des athées yoo xamante ne lu ñu gëm mooy des mythes moom la gëm dañ gëm ne bon euh, euh, li fi ne bon li fi ne war nañ ci mën a bànneexu te dara waruñu ko mën a xañ parce que aussi ñun ñun la ñun ñunu kese la même bu ñu deewee it ñun la gëmuñu ni am na lu ñu fi andi yéemewul ah fa ñu jëm yéemewul donc ñoom loolu la ñu gëm mais aussi l'islam andil ñu ay bawaabit ay mabadi ay ahkaam yu am am am solo pour ñu gëm ko loolu c'est très intéressant vraiment sant naa leen quoi euh, kon nag euh, mbokk yi mu des euh, philosophie ak religion mu nekk cere ak soow benn mënul dem bàyyi sa moroom ndax nag l'islam benn dafa bëgg ñuy jëflante jëflante bu ritax l'islam dafa bëgg ñu am suurité sérénité ci suñuy jëf mais ci suñu foi mais ci suñu religion bu ñu nekk te xam nga ni la philosophie traité na bu baax le doute et la certitude te loolu xam nañ ci ne euh, yonent bi saa salaam moom moo njëkk digle lool yonent bi jàngal nañu dëggu jàngal nañu bu ñu demee bay wax nañ koo mesurer ginnaaw bu ñu ko pensé xalaat ko ci xalaat bu sell yonent bi dëggal na ni jaamu yàlla boo xam ne dafay ànd ak méditation méditation pas ci xel mi rek mais dafay link ak xol bi su ko defee làmmiñ bu waxee dañuy xam ne kii leera na ci moom ba lu mu ñaan yàlla may ko ko parce que am na yaqin lu mu dëkk dëkkmal du ragal parce que am na yaqin ba lu mu dëkkmal aussi daf ci am sécurité al walla am na parce que am na yaqin ak sidq donc loolu dafa am solo manhaj boobu dafa nekk manhaj boo xamante ne nag manhaj aali aali la manhaj aali dafa kawe foofu nga yàlla may la ngëm bu dëgër faw yàlla may la xel bu yaatu faw yàlla may la nga xóotal sa xeer pour am sagesse faw yàlla may la dëggu aussi loolu philosophie musulman yu bari ci manhaj boobu noonu lañu tegu woon donc loolu dafa am solo donc philosophie moom l'islam daf ko encouragé bëgg ku koy def ñaax nit ñi ñu di ko def ñu bañ koo sàggane donc euh, euh, mbokk yi loolu mooy synthèse bi nga xam laa doon jéem a def ci waxtaan wi nga xam ne am na fi démb ndax dafa am solo ba pare am niveau ba pare nekk loo xam ne toujours dafay actuel waaw philosophie moom wax dëgg yàlla ni ngeen ko définir yëpp baax na parce la philosophie n'a pas de de de de de la définition euh, juste philosophie amul amul définition boo xam ne juste na waaw loo ko définir rek mën ngaa jaar ci ci ci définition bi kon euh, lépp loo xam ne dafay traité pensée ba mu génne la origine bi loolu daf lay

donc loolu nag du lu yomb te question yi dafay pertinente question yi dafay am njëriñ question yi dafay génne njëriñ question yi dafay am ay asar ci ki nga xam ne moom moo koy laaj ci société bi mu koy laajee ak ki mu koy laaj parce que bu ñu xoolee diggante Socrate ak ak ak ak ak ak sophiste boobu di di Pythagore donc euh, bu ñu xoolee ci la Socrate génnee ci lañ koy doogee xam.

voie boo xam ne bu sûre la voie méthodique pour ngeen mën distinguer li nga xamné moy tiaxan ak dëgg donc luñuy laal ak luñu dul laal c'est pas la même chose est-ce que ki fi andi dañ koy laal te pourtant amna na fi andi parce que ñun cëppeewul wuñ fi kenn ku nekk da nga am yalla fu mu la jaarale pour nga ñëw fi pourquoi doonu ñu won dara té ñu doon dara pourquoi dara ji ñu doon après duñu doonaat dara c'est intéressant quoi loolu dafa am solo xam nga ni euh, ki nga xam ñi nga xam ne ñoom ñooy base philosophie grecque ak occident yi par exemple Thalès Galilée Socrate ah Platon malgré ñoom ñëpp bokkuñu ay temps yoo xamante ni ñoom ñoo nekk dajawuñu ñoom ñëpp mais pour wax la Galilée xoolal li mu jànkuwante ak ci église Hein, euh, église ba rek te ci 92 bi pourtant lañu doga valider limu wax ci église bi hein, ah pourtant limu wax deug la alquran nañu ko wax la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar qamar wala euh, wala laylu sabiqu nahar wa kullun fi falaki yasbahun mu ne leen la terre tourne ñu tëkku ko jox ko ay jour pour pour mu ñëw démentir loolu pour mu ñëw euh, weddi loolu mais dara mu insister ci lolu la terre tourne parce que aussi yalla jox na ay pensées yo xamantene ne wan ni lolu deug la ci ay théories yu leer donc la terre tourne mais la terre tourne autour de lui mais ñi meew fa ag te parce que tëkk nañ ko dañ ko rey ba dañ ko mujjee empoisonné donc kon lolu yalla mayena mom la philosophie dafa am té la philosophie aussi fay ñew dëppook ay ayat ak hadith même que mën na ñëw aussi juyoo ak ñoom ci ay pensées mais loolu dimension la. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yow Oustaz Serigne Saliou ñu lay ziare bu baax di defal audio yu bëri xam-xam yi xamante am na solo lool lool lool wax dëgg yàlla. naa di am mbégte lool di kontaan trop parce que audio yu ko jiitu yëpp a amee xam-xam wax dëgg yàlla yëpp a leer. loolu de suñ borom moom mooy feeñale noonu boppam rek parce que dimension yi yemuñ tolluwaay yemuñ ci dara mais mooy faral wax na ay bëri na suñ borom indi ci alxuraan bare ba loo xamante ni philosophie musulman moo koy leeral bu dee ci alxuraan bu dee ci yeneen nag géejuma ci woon yaa ngi xeet yi donc suñ ko waxee wa isma allah fi ayaamin maalumaat ala ma razaqahum min bahimatil an'aam da nga xam ne philosophe rek moo la mën a leeral loolu waaw philosophe moo ko mën a leeral boo xam ne uskurullaha fi ayaami maadudat adat yooyu philosophe moo la ko mën a leeral wa aqimi salaata li zikrihi noo koy defee philosophe moo la koy leeral xeet yooyu dafa bëri ci alxuraan daa bëri na lool lool lool يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا كما يفعل في مديتاسيون moom ñàkk ala kulli xaal di wax ma nag comme li nga wax ci audio bi avant bi wax suñ boroom ndox lu ñuy laal lu ñu laal yàlla subhanahu wa taala am na luñ mën a laal ci moom am luñ mënul laal ci moom am na luñ mën a xam ci moom am na luñ mënul xam ci moom am na luñ mën a gis ci moom am na luñ mënul gis ci moom moom moo bindoo noonu moo moo def noonu da wax الله نور السماوات والأرض مثل توره إلى آخر آية من يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء وأنا خمل لكم موم رك لاي صوب نك مو وون لا سي بخم دارا موم لاي صوب مو وون لا سي مو جوخ لا سي بخم دارا موم لاي صوب تام مو خمل لا سي بخم دارا يالا نك لو گيس سي موم تي موم لا لو خم تي موم تي موم لا ا لو ام سي موم تي موم لا موم رك لا دونك نان نك اب مبير يو مبير يو mu xóoto xóoto xóot yoo xam ne daal yàlla rek lay soo mu defal ko jaam bi waaye nag boo jàppee ne tam jaam bi da koy tënk ci barab daal ne jaam mooy ñiy def ñii wala ñii déedéet yàlla moom lu ko neex lay def jaam bu ko neex comme mën nañ musulman bi comme mën na nekk keneen ku dul musulman parce que dama mës a dégg ci waa ji wax wax ju am solo euh, euh, waaye fàtt na turu saas bàyyi fàtt na turam mu ne suñu borom du jullit du chrétien du juif te wax na dëgg yàlla yàlla rek la wax dëgg yàlla ñu ngi siyaare bu baax a baax. ñu ngi nuyu mbokki groupe suifisme ak ñu ngi nuyu ñëpp euh, képp koo xam ne sa numéro mi ci groupe bi ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa taxawaay macha allah euh, di rafetlu groupe bi ni muy doxee dëgg yàlla xam-xam mi ngi fiy wàcc. amna solo lol yalla na yàlla barkeel lépp ke defal ñuko ke defal ñuko ko aw yiw ke def ko ki suñu téré yëf wax deug yàlla amna na solo lool di nuyu sunu professeur baysal ñu koy nuyu bu baaxa baax di rafetlu taxawaayam macha allah am na solo muy ko xamni nak yag nañu euh diglu ay waxtaanam ci yeneen groupe yu bu bokkut ak groupe bi. ñu ñaan yàlla yokk xam-xam bi ca dëgëral ko ak mboolem borom xam-xam yi nekk ci groupe bi yëpp macha allah am na solo di rafetlu waxtaan wi nga xam ni defan nga ko dem muy waxtaan wu am solo muy waxtaan woo xam ne yaa ngi doon ko def ci wàllu soufisme wax dëgg yàlla teewul nañ ko am solo lool jariñu nañ ci bu baax a baax. ok asalaamaaleykum ñu ngi nuyuwaat beneen yoon eh, bu ko defee sa débat boobu nga xam ni wala sa waxtaan boobu nga xam ni moo fi amoon démb mooy waxtaan bu am solo eh, mu mel ni waxtaan boobu nag dafa am beneen débat boo xam moo ci judduwaat muy lu jëm ci wàllu philosophie eh, moom it wax dëgg yàlla am na solo lool. Eh, eh, diglu nañ lu ëpp ci audio yi li nga xam ne moo fi jaaroon démb ci mbokk yi wax dëgg yàlla am na solo lool jaaruñu nañ ci bu baax a baax eh, dégg nañ ci tamit lu bare bare philosophie nag comme ni nga koy feral di waxee rek ni ñuy faral di dégg nga koy waxe mu mel ni lu mënta ñàkk la ci mboolem fànn yépp wala mboolem mbir yi yépp moom boo xoolee da gis ni philosophie mu ngi munu cee ñàkk ndax mbir mu ne euh, mbir mu ne boo ko xamee boo ko xamee am na am na lu lu gën a yaatu lu nekk ca biir loo xam ni xëy na xëy ne boo xóotul sab xalaat wala sabu gëstu dëgg-dëgg doo ko ci xam te loolu defe na philosophie eh, mooy li nga xam ne moom moo ko mën a maye mooy xam la ci biir xam la ci biir dëgg-dëgg kon philosophie lu am solo la moom dàquñu ko eh, waaye nag dañoo wax ni philosophie am na am na lu lu lu jub am na lu dëng maanaam ñun nekkuñu dañoo gëm ni philosophie léppam dafa baax wala déet wala yu mel noonu day waaye dañoo gëm ni philosophie am na lu jub am na lu ko dëng euh, waa kay bu ko defee ñu jàpp ni philosophie daal bala muy mën a baax faaw day tege ci alxuraan ak sunna Euh, ndax ñun mm, dañoo jàpp ni philosophie mën naa ñëwee mën naa ñëwee ci ñaari fànn yépp mooy mën naa ñëw dëppo alxuraan ak sunna waaye tamit mën naa ñëw juyoo alxuraan ak sunna ndax philosophie lu yéeme la ndax euh, mën nga di xalaat xalaat ci mel ni mbir Euh, di xalaat ci mbir moo xam ni xamoon ni mu demee xamoon ni mu demee dëgg-dëgg euh, ndax mbir moo xam ni gisoo ko euh, lu mel ni kom lu mel ni xaybu nga xam nga mën nga di ci xalaat ca fekk gisoo ko xamoon ni mu deme mën ngaa dem ba jàpp ko noo xam ni fekk demewul noonu dëgg-dëgg waaw fekk demewul noonu dëgg-dëgg maa ngi dégg Eh, mel na mbokk sax mi ngi ciy indi ay leeral mu indi ci ay leeral yu am solo eh, defe naa bu ma xoolee profil mi ngi tudd xekma ma indi na ci ay leeral yu am solo démb leeral yu am solo sax eh, moom it ñuy rafetlu ay kàddoom macha allah am solo bu ko defee li ma ciy dolli daana dégg ñuy wax ni. xalaat ca jëmm yàlla ji ndax yàlla moom mënoo koo xam ca jëmmam waaye yàlla yaa ngi koy xame ci mbindeefam yi ci li nga xam ne bind na ko ndax yàlla moom xel ak li muy xóot xóot koo xiyaas mënu koo takk ndax xel dafa am fu muy yem dafa am fu mën a yem dafa am loo xam ni mënu koo paase mënu koo xam faaw rek dañ ko koy xamal mu xam ko eh, bu ko defee eh, mbindee fi yàlla yi ci nga mën a jaare ba xam ko moom yàlla ci ngay def ci ngay def ak ba xam ko waaye bu dee yaa ngi xalaat ca jëmm yàlla ji ni mu demee eh, boobaa moom eh, jàpp nañu mën ngaa dem ba dugg ci eh, kàmm goo xam ni mën ngaa mën ngaa dem sax ba weddi ko ba weddi ko moom yàlla ca boobaa Euh, li la koy teg mooy mooy li ngay xalaat danga ko tegul ci base mooy da nga ko tegul fa ko war a teg mooy lu nekk mooy nga xalaat ci mbindeefam yi waaw mooy nga xalaat ci mbindeefam yi